mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyuwaat di leen gërëm bu baax teewaat fii ci seen seen La Solution TV di leen gërëm bu baax tey jii ñu ànd ak yéen nag seen émission focus ni tam di ko defee saa su ne tey jii ñu am gan ci àllarba ji yamoo ak première mai di ab syndicaliste mais dinañ ci dikk ci kanam. sénégalais bu yàgg nag ah <laughs> Babacar Mbaye Ngaraf daan def politique aussi ah wala ba léegi yaa ngi politique. loolu maa si ci mois citoyen yi. waaw léegi jiite alliance Sauvons le Sénégal. effectivement waaw teg ci tamit euh, doon porte-parole chargé communication wu ñiy xeex pour littoral bi ci géejawaay ñu sàmm ko ci. peggub géej gi maanaam coowal suuf yi moom da koy interpellé moom Babacar Mbaye Ngaraaf mm-hmm. tey ji doon suñu gan Omar Boun Khattab Gueye di leen ko présenté Modou Diouf Abdou Toob ak Ablaye jàpp ci régie bi Babacar may Ngaraaf ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal jàmm maa ngi lay fay di la mm-hmm. nuyu di jaare ci yow di yóbbante ab nuyoo pour ñi nga seqal liggéey yëpp ci wàllu fajri yi mhm. mu nekk chaîne bu am solo ñu mhm. koy wax sax la voix des sans voix mhm. ma yàgg ci xam dara ci yàgg ñu ñu taxawoo ci banlieue ba ñu nekk victime d'injustice di leen féliciter di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan du nuyu également ñi seqal le monde du travail à l'occasion de cette fête du premier mai bi nga xam ñu koy célébrer ci laa jóge sax daf si ñëw fii ci yooyu travailleurs aussi ma jiital ci enseignants yi. Mhm. rawatina nag enseignante ak enseignants yi nekk ci école élémentaire yi. Mhm. waaye di nuyu également ñu ma mhm. seqal syndicat bu ñuy wax organisation des institutions du Sénégal nga may ma rek. ma profité ko seen antenne pour rendre leen un vibrant hommage. ndax liggéey bu am solo bi ñuy liggéey jëmale ko ci njariñu école bi ak njariñu réew mi. yaa jiite OIS. E waa ñoo jiitee OIS yi depuis le congrès mm. du 30 décembre 2023 mm-hmm. remplacé fa ko naqaree remplacé nag muy Hamidou Ba Hamidou Ba nga xam ni moo yore leen di syndicat depuis le départ de Youssou Touré en 2011 mm-hmm. Youssou tamit nekk koo xam ne ànd nañu ak moom mm-hmm. liggéey liggéey bu am solo xëy na jamono jot ñu réeroo waaye tekkiwul tamit ni. dañ koy bañal li mu xeex ci école xeex ko ci wàllu syndicalisme quoi très jàmbaar la di ko ñaanal wér dafa naa ñu tey ji sax euh, enseignants yi yu bëri ñu wax Mm-hmm. amel nañ ko njukkal. Mm-hmm. amoon na nag ay jamono aussi àdduna bi doon noonu. Mm-hmm. da ngay jiite benn instant ñeneen ñoo jiite loolu mooy tax comme tabax rek. mu mbir mi di jëm kanam. Hamidou Ba remplacé ko depuis mille 2011 def deux mandats. liggéey liggéey bu am solo boo xam jàpp naa si man mënuma ko. waaye dañ ciy jéem rek ëllëg keneen su ñëwee mottali li ñu jëmoon su yàggee mu mat. kon muy moom Hamidou Ba ñu ngi koy sargal bu baax. Euh, ba mu fa jógee nag congrès bi choisir ñu comme secrétaire général. ñu ànd ceeg ñoo xam ne sax jàpp naa ni ñoo ñu gën a xam liggéey bi te dàquñu ko. Mhm. waaye xëy na mbooloo mënut a ñàkk njiit ñu tànn ñu def ñu seen ndaw teg ñu seen kanam. Mhm. ñu fas yéene nag jaamul ki seen soxla. Mhm. ba li enseignants yi ñu tudd leen instituteurs ne ci école élémentaire yi am yaakaar ci OIS bañ a tas. incha allah dinañ ci dellu si ci kanam Babacar Mbaye Ngaraf yaa ngi am nouvelle yu Touré. Youssouwaaw xam nañ ko di dëggante fan yi nag waaye li ñaan jàmm rek mooy umpe may pour ci occasion bi tamit di ko ñaanal yàlla yokk wér-gu-yaram mm-hmm. mam yàlla yokk fanam guddal fanam yàlla wéree ay cëram yàlla ko sàmm ko sàmm njaboot gi ndax it loolu mooy waree fu julit mm-hmm. ànd nañu encore une deux mille ba deux mille onze muy mm-hmm. onze ans mu def nag ci syndicalisme aussi ay sacrifice yu bëree bëri. bien sûr taxawu aussi instituteurs yi ba tax ñu mën remporter ay combats yu bëree bëri. Mm-hmm. ànd ci woon ay suñu doyen yu ci mel ne ñoom Saliou Dieng yàlla def tey ñu jiitu ci ñu ñu ngi ñaan yàlla yërëm leen fii ñu tëdd dàqal leen fii nu jógee ànd ci yeneen camarades yoo xam ne tey ñu ngi à waaye tey la ñu gën a nekk au service du syndicat. Mm-hmm. tey la ñu gën a jël seen temps seen énergie seen moyen mettre ko à la disposition des enseignants à travers un syndicat appelé OIS. <laughs> mais mais Ngaraaf bu weesoo syndicat bi daan nga def politique man AFP laa la xamee ah yow ñoom Malick Gakou. effectivement nekk def ko PDS aussi wala génération du concret je ne sais plus. mais mais da nga jékki-jékki bàyyi politique quoi Ngaraaf. waaw xam nga dafa am ñaari tur. nga bàyyi politique. non alors jamono joo xam ne ñëpp ñu ngi daw pour dem defi politique. waa xam nga d' abord ñu ngi commencé politique en 1999 ak euh, la création de euh, l' AFP. Mhm. ma ciy profité aussi ñaan al Moustapha Niass ak aussi ñu ñu boole ñu liggéey ndew ñoom ku ci mel ni Malick Gakou ak ku ci mel ni Pape Sagna Mbaye ma limee da ngay jumbaay su ma tuddee ñaar doy nañ ñëpp ndax suñu ànd ci politique dem na tey ba jur ci ñun fraternité la preuve ci wàllu famille Pape Sagna Mbaye te ji mooy sama parrain wu doom macha allah dépp mu nekk liir kaye yére lépp mu jëm bi ñu koy maye sax moo ko maye mhm. kon kooku ñi nga xamante ci wàllu politique mettee dem nañu ba dépassé mhm. ma dëkk mhm. Géejawaay yoo xam ne ku xamal sax mën naa jàpp nañu bokk ndey ak bàyyi. Mhm. mën naa ci lim ñu neen waaye su ma limee ñiim ba yenn jamono c'est ça la démocratie. xëy na déggutuñu woon ci wàllu politique ñu nekk yi passé na. ma gis Ablaye Wade. li ñu ko fayee woon bu ko toroxal. jàpp naa ne jaariwul te mérité wu ko. ci laa nag dugg PDS. di ni ma sax xëy na sama dugg PDS Karim Wade ma ko yombal parce que dégg naa sànq wax génération parce que bi muy xeex ci bi. di xeex surtout ci wàllu inondation yi. ak wàllu tali yi. Karim Wade mi ngi nekk ministre d' état. xoolul ni ki opposant la waaye dafa ñëw ànd ak ñun ñu porter le combat ba tey ñu am ci amélioration yu am solo. ci gestion inondation ak également. Euh, ay voies de communication tali et autres. Mhm. dans dans la banlieue. Mhm. kon su ñu àndeek moom ci lu mel noonu ñu dem ba réeré ko ay pexe na toog élection présidentielle jot ma jàpp ni ànduñu parce que boobu suñu àndee ànduñu woon. Mhm. ci laa bàyyee. président Ablaye Wade perte nguur gi. waaye ñu taxaw ko ci ay créer ay ju kenn xamul rek. lu lu lu ñaaw jarul nettali. précise ko lool. te ñu jàpp ne waa da le combat ki mu mëne li mu mëne pour la démocratie mëne ko aussi pour réew mi ba Sénégal am fu mu nekkoon am fu mu nekk jamono jooju mérito na lu ne ba mu def persécution bi nga xam ne ñu ko tegoon ci kaw ak njabootam ci boobu temps nag laa dem dugg biir PDS ñu ànd ci di ñafe di ñafe ñu gunge Karim Wade xeex aussi parce que boobu dañ jàpp Karim aussi ñuy xeex te boobu gis nañu xeex bi ñu bëgg am na ñu mbokkal famille politique ñoom it di ko def mm. li gën rafet mooy ñu àndoo ñun ñëpp danañ yokk suñu doole danañ maximiser également nos chances de remporter. Mhm. combat bi ñu mën muy lan ñu féexal Karim waaye féexalu aussi njabootam te teggi tuuma yi ak song bi ñu songoon Abdoulaye Wade ak njabootam. Mhm. biñ ci paree Karim Wade di génn dem ñu garder les relations mu dem Qatar mais benn instant aussi. Mhm. ci ñu nekk yaa ngi koy wax sànq la lutte syndicale bi ñu nekk. ak aussi combat yi ñu doon porté dans la banlieue. yombul woon ñu koy boole ak la politique. on a ñun ak suñu yeneen i morom. yu jàpp ni par parlo daf ñuy tardel nañu xool tey lii suñu réew muy Sénégal. ñu teg ko ci kanam fàtte fi ñu bokk ñun ñëpp taxaw nag ci njariñal Sénégal loolu lañ taxaw nag ci mu am alliance sauver le Sénégal. bi ko gars yi fa euh, mettre sur pied ñu am ci man yaakaar dégg ma njiit ma jiite ko. ci la ñu nekk nag ba tey. mais alliance boobu ci li la gën a déggoon mooy mbiri Petro Tim ak mbiri Aliou Sall ah, ba ngeen demoon ci sax bi ñuy def appel à témoin dem ci kanamu procureur ginnaaw plainte yoo xam ne dugaloon ngeen ko tey jii nguur gu bees am ñuy def réduction des comptes tey jii rek cour des comptes am na rapport bu ñu génnee ñu ci tudd ay Prodac ji ci tudd yeneen dossiers yoo xam ne tey jii dafa lëmbi réew mi tey jii reddition des comptes boobu tey yow mi doon xeex ci Karim Wade boo gisee tey nguur ñëw di ko def am ñu jàppee ko règlement de compte wala reddition des comptes mais yow ban gis-gis nga ci am ci poursuite yi am ak rapport yi ne nañ génnee yëpp tey ji ban jàngat ngay def ci lu mel noonu. awa ko sànq mooy ñu bañ rek jaawale réduction de compte ak règlement de compte. Mm-hmm. wala ñu jël réduction de compte transformer ko en na instrument de chantage politique. instrument de chantage politique. waaw comment lu tax xam nga parti politique lu ci ëpp suñu day bëgg yokk mbooloom. Mm-hmm. suñu nee nag. ña mu gën a yaakaar pour yokk mbooloo mooy ñi fi jógee. parce que ñi fi dañuy soog a jóg amaguñu ambition pour revenir coûte encore coûte que au pouvoir. dina bari ci ñoom ñoo xam ni pouvoir dañ a nagam loo. tàmm duñu xeexu mbedd mi dañuy préférer rek garder seen seen seen train de vie bi ñu amoon bi ñu nekkee au pouvoir. lu cëpp sa benn parti ñëwee nag day bëgg a renforcer partir de ñi fi jëlee. léegi ñi nga xam ne ñu nekk ay pouvoiriste dañuy def fekk leen automatiquement. ñi nga xam ne am na lu ñuy gëm ñu jëm leen xupp. génne benn yat boo ko defoon njombe suñu la xuppee nga naa daw tafu ji. ngir sànq sama bopp sutura. loolu nag jaaduwul ndax def nañu réew mi kenn jox loxo yi teg ci loxo yi kenn. ngir mu ci exercice di chantage politique. moo tax mañ la reddition des comptes lu am solo la. ndax li ñëpp bokk suñ ko tegee ci loxo kenn. wala ñenn. jaadu suñu paree ñu xool li leen dénkoon lan lañ ko yore woon la moo ci baax ñu gërëm leen la ca bon ñu topp ñu xool nañ koy corriger. Mhm. kuñ ci mën a topp ñu topp la koo xam ne jàppale defoo lu ñu war a topp ñu nag au du ay sénégalais ak ay ñeneen ay sénégalais ki seen biir la. nu mhm. ñun doomi réew mi nañ moytu di xastante ak di ŋañante. Mhm. dina ma permettre da laa joome ko. mu naqarlu yenn yoo commencé gis ci réew mi. mooy yan. le président Bassirou Diomaye Faye def ay si Sénégal di ñu am ci moom yaakaar lool. bu waree yar ak teggin bu wanee ne kat mën naa yore réew mi mhm. waaye aussi ñu wax ñu ci parcours am aw doxalin boo xam ne daf ñu rassuré ñu gis ne ki mën naa yore réew mi mhm. mu am lu mu wax ci discours am ni mu gisee réew mi mhm. ba wax ci lu ñu wax ay lanceur d' alerte malheureusement gars yi def ko une exploitation pernicieuse ba tey sax finalement xametoo lanceur d' alerte ak menteur d' ay nit ñu kenn xamul lu ñu doon ñooy xëy rek gar seen portable dem fekk oto jàmbur kër jàmbur naan ngay ki moom sàcc la jàpp naa ko kii may leen ma ko di toroxal ay gor yoo xam ni bañ am seen dërëm xamuñu fan lañ jaaree. Mm-hmm. gis nga xamoon naa ci politique. Mm-hmm. réew mu euh, nguur gu falu gu nekk. Mm-hmm. jéem a def li ñuy wax dee xam nga dangay taa ñu naan déwadisation. c'est la waat dañoo ne ay nitam. waaw Macky ñëw na. Mm. day déwadiser. en fait du terme sax français mais dañ koy gisoo Sénégal euh, Sonko ñëw su ko neexee mu def démaquisation mu mhm. wax safar laa bon Sonko mooy jamaale gars yi di wax ñoom jamaay ñëw bu leen neex ñu def démaquisation ci nguur gi mhm. waaye xam nga lii la moo commencé xew léegi mm. désavarisation lo lan nga bëgg a wax xam nga le verbe avoir avoir mooy am am waaw ñoom lii ñoo bëgg a dugal désavarisation ba nga xam ni ku ñu jàpp am nga dërëm sax ay nit taxaw di yuuxu ni ki sàcc la woon. comme si réew mi am fi dërëm te mu lew la c'est pas possible. non non kenn wax garaaf bi ñuy wax loolu waxuñu ñu ku def lu lew. mais daf am na daa am yoo xam ne les faits sont têtus. on dit la on dit la même chose. Euh, oui ma les faits sont têtus. Ah. mënuñu wax kii li jëm ci mbir yi euh, Covid 19 xaalisu Covid. Mhm. ñu ne ay junni milliards ñu jékki-jékki ay rapport génnee. Mhm. ni épinglé nañ ku mel ne Mansour Faye du mhm. ay lu nit di wax ci mbedd. Mhm. ñu ne Cour des comptes. tudd maanaam tey jii. li fi kenn toppul ku ñu warta topp. ñi ñuy tudd yëpp ay rapport ñoo génn. cité ah. seen tur ci pratique nébuleuse yoo xam ne da ko dénkoon alal réew mi ñu foog ko def ko seen moomeelu bopp. ñoo ñooñu day jekk yoon ñëw topp leen maanaam impunité bi amoon ci jamonoy Macky Sall xam ne boo sësee ci moom wala dara kenn du la topp loolu la nit ñi bëgg ak domaine bu mel ni inondation ñun la 750 milliards dugg na ci inondation tey jii la waalo gën a ay malgré que am na ay progrès ak ay liggéey yi ñu ciy def tey jii ñu gis ni ni gars yi di enrichiro day wute ak seen liggéey ak seen am-am ak li ñuy jot weer mais on peut se poser des questions lan moo waral lii quoi. voilà très bien kenn jàppagul kenn tëj ko mais on doit se poser des questions. waaw moom laa la wax noonu la. Hmm. yow li nga wax nii man moom laa wax pourtant. Hmm. li nga wax ni moo la wax de dama ni. kenn fekkul ku am alalam ci lu ñu koy jàpp ngaraaf. man de gis ba dama ba wax déedéet Omar dafa ndànk de Omar bu ma de. Ah. li wax ni moom laa wax. Hmm. li nga bëgg a wax laa waxul. mooy lan xam nga laa wax. Hmm. dama ni rek ku dénk ku ñu dénk. Hmm. c'est normal ñu saytu la. la nga def bu rafetee. ñu wax la waaw góor. bu jalgati woo ñu jubbanti ko jubbanti la yow mi ko def. ndax li ñëpp bokk kenn amul dara jël ko nga dara jox ko tuddee ko sa bopp. Mhm. dañ ko rafetlu. mais bëgg a ah. lan nga bëgg a tuddee loolu. waaw baal doo bàyyi ma tontu ma la li may li nga xam ni dañ ko bëgg a def benn exploitation pernicieuse je ne dis pas mhm. wala régime. Mhm. wala sax état wala fonctionnaire yi. mais dama ñu la dañoo wax ay lanceur d' alerte. ay nit engouffré ci di wax loo xam du lanceur d' alerte. Ah, ah. maanaam di jël ay cri jàmbur ak. Mhm. ay oto jàmbur lool laa lay loolu la ñuy la ñuy wax dañ ci def attention mais cour de comptes yeneen yeneen même même yow sax boo gisee ko xam ne kii def nga def na loo xam ne jaaduwul te alal c'est-à-dire dafa am confusion bu commencé am Omar Gueye day am liggéeyam yorewul yuusu yore dërëmu état mhm. ci liggéeyam am na ci teranga am ci këram am ci otom am ci leneenam mhm. ay gaa daw di ko loo koy ku rek yaa koy gis loolu mënuñ du fët bu ñu mën a wax régime bi du ñoom mais dama ciy woo sama mbokk sénégalais yi pour ñu moytu diffamation ak tooñante suñu ah, biir. loolu civilisé wul sax loolu civilisé wul sax sax. Ah. cour des comptes mais kenn def ah, justement très bien moo tax ma ne dafay baax le président ak mën a repriser sa pensée. non président li mu wax leer na de jar muy repréciser parce que li mu wax dafa ne euh, képp koo xam ne da nga euh, kii nu mu tudd da nga nekk koo xam ne da da nga mbubboo alalu jàmbur. <laughs> comme ah da nga mbubboo alalu jàmbur comme ngaraaf jël ma def ma un prête-nom tey ji prête-nom boobu tey ji war na mën a dem kalaame ni ah lii de alalu diw la bu boobaa du doon sax li ñuy siwal ci kaw mais moom day dénoncé bu dénoncé ba pare ñu xool moom lan la ciy am jox mu dem loolu la wax mais président dégguma fu mu nee les lanceurs d'alerte ku gis étage u jàmbur wala ku gis immeuble jàmbur moom la lay wax Cheikh Omar sa waxtaan bi du yomb de parce li ngay wax nii mm. dama dama li président wax dafa am dafa am ñu ci dafa am ñu ci engouffré ñu ci dugg di def ay règlement mais chaque jour ci TikTok bi bu ngi tardé chaque jour bi ñoo xam ni hmm. dañuy dem fekk sax Omar Gueye hmm. Omar Gueye liggéeyul état nekkul dara ci état du dara am ñu boobu ay gars o oh, yàgg ko yàgg koy gis ah. loolu dama ñu def boobu faute du président fa damay lancé Sénégalais yi appel hmm. ñu xam ne loolu ñuy def bokk nga li président santaane loolu délation lañ koy tuddee ñoo koy def du ñu ay lanceur d'alerte lanceur d'alerte dañ dañu koy identifié dañu am dafa am identifié dañuy identifié xam kan la ak ñan la. ñooñu la lanceur d'alerte yi ne da leen di protéger def loi an anoo ah. ci. mais li xew bi loolu lanceur d'alerte la ñuy taxaw di jël photo yi di ko wane naan ay. mais grand yow lanceur d'alerte nga yow coow Aliou Sarr ak Petro Tim oh. ca Alliance Sauvons le la fi nekkoon dénonciation. Ah, gis lu dul yoon mu ne lii war nañ ko lijjanti topp fi Aliou Sall ba mu sës wala na ngeen doon politique rek. déedéet. Cheikh Omar man je ne sais pas quelle langue laa war a pour nga dégg li ma wax. Ah, dama ni lay président wax saytu réduction des comptes lu jaadu la. Mhm. ma waxaat la ko waxati la ko waxati la ko wat encore mu bëgg caab ñu ci engouffré wu ñoo xam ni dañuy ñëw fekk ñoo xam ne seen yoon nekkul ci dara. Mhm. ñu ji leen di tuumaal di yàq ay goro loolu ma wax je n'adresse pas au président. Mhm. dama koy adresse ñi koy def nañ ko bàyyi parce que loolu leen Sénégalais sant loolu leen réew sant loolu leen président askan bi. ñu ko war a topp ñu ngi koy topp koo gis loo xam ne jaadool ci alalu askan bi demal nga bu la neexee ko dénoncé ko à différence avec de la délation foofu laay waxee yow ma wax la également que ni euh, euh, euh. da nga benn question boobu mu posé ni affaire u Petrotim bi li ko indi woo mooy président Abdoulaye Wade dafa def benn sortie daa mhm. di leeral affaire Petrotim bi ak affaire u ArcelorMittal ArcelorMittal ci résidence Mamoun fii très bien ñu gis mhm. les tenants du pouvoir d'alors ndaa ji daw indi ay tontu daal di lii politique la dugg na fi génn ko def benn combat boo xam c'est ça concerne deux camps politiques alors qu'on parlait de nos ressources ñu ne déet lii du lay tuuma moo koy réglé su ko day nekk benn combat entre xam nga tey jii am na ci yenn zone yi soo fa rembee saay saay saay saay si di la agressé dañ lay songu naa ma lu tax nga di la dóor naa lu tax nga naan suñu bière lu tax nga naan suñu bière xam na lañ ci jublu mhm. ñi romb war a atte ñaan ah ci ay ñuy xeex ci seen biiri bière la mhm. pan nag ñu ngi lay dépossédé mhm. maanaam gaa dema ci benn instant nous avions l'impression que gi fi nekkoon war a de porter sur ñoom da nga bëgg def benn combat politicien bu ko def sénégalais yi maanu ci or comme parler de ressources qui nous appartiennent ñun parce que bu ko fàtte ni ressources yi peuple bi moo ko moom ñu ne kon léegi dans la mesure am na kuréel boo xam ne am na possibilité enquête ci mel ba Sénégal yi xam dëgg nañ dem saisir ko loolu moo taxoon ñu dem saisir OFNAC naqaroon nañu sax après am njaaxle ci ñu naan yéen ñi di wax ci pétrole xam lañ ko dara il ne s'agissait pas d'être des techniciens ci pétrole mm-hmm. li ñu bëggoon mooy il y avait un débat sur nos ressources ñu wax dañu koo jël ñi ni jëluñu ko ñi dañ wax leen neex ñee nañ ko yëpp pour ñu leeral ko soo defee nag of nag fa la toll est-ce que non loolu après rek nañ ko xam yaa ngi fàttaliku après defoon nañ fa af naag gars yi déglu ñoom Aliou Sall déglu ay Franck Timis mu amaat encore euh, waaw benn ñuy dem le doyen des juges le procureur pare ci yóbbu ko ci le doyen des juges bi mu paree aussi def na moom aussi rapport am lañ ci tënkoon ci ñoom mooy gisuñu ne war nañ cee topp mais dans tous les cas est-ce que loolu mën nañ ko revoir surtout bu dee dossier boobu épuisé nañ ko. Euh, ba def ci non lieu. Mhm. ci Aliou Sall est-ce que toppaat ko dina. yoon oh, loolu na xam naa ni ñiy jàng yoon ëpp ñu ci xam ko ñu ci gën a xam dara. mais est-ce que vous êtes satisfait yéen yéen ñi to doon topp lii. waaw parce que en fait xam nga dogal bi ci justice jëloon. voilà tey ñun. on hmm. a encore li ñu bëggoon. Hmm. mooy xam mbir yi lan moo ci xew dëgg-dëgg. xam ngeen ko. waaw ah, parce que xam ñu xam. Hmm. bu ñu nee par exemple euh, Demba Ndiaye Mbale sàcc la. dama ñaa ji duma sàcc mais dañu yóbbu police ak justice bi àtte ñu enquête seen liggéey la ñoom buñ ci pare ginnaaw ñoo leen wóolu ba dem fa lañ ñuy wax lañ ciy jàpp rek parce que preuve contraire mais il ne sert à boo nee lii diw laa ci yaakaar moo xam li ciy dëgg mhm. di moom wax la nga ni googuma ko kon ko jar nga jar nga dafa dem yow mooy de sànq nga am mot boo utilisé di fàttali ni Babacar Mbaye Ngaraf lan dalal alliance Sauvons le Sénégal jiite tamit euh, du yor porte parole ak communication wu mhm. xeex ci littoral bi ci géejawaay ci coowul suuf si dinañ ci dikk kanam Euh, nga ni euh, li jëm ci moyen de chantage politique ngay bañ mu doon ko. Mhm. li jëm ci topp yi ñu topp gars yi. Mhm. parce que loolu aussi li nga wax dëgg yàgg na fee am. Mhm. ñu topp ay nit jekki-jekki ñu dugg ci parti def transhumance. mais boo xoolee ñii fi ñëw tey ne jubal. jub ak jubanti te ñoom ak li ma mujj a dégg ñu wax ko ci wàllu transhumance. est-ce que jàpp nga ni ñoom ak ñi fi nekkoon ñooy yam ci doxalin boo gisee acte yi njëkk a teg ban faloo ak weer tey ji waaw dafay xaw xam néew na lool pour ñu euh, mën ci apprécier nit waaye nit dina doon sa nga yaakaar am ci moom yaakaar wala nga ñàkk am ci moom yaakaar mhm. dama ni la soo xoolee du point de vue des profils mhm. am nañ yaakaar ni mbir yi dina baax mhm. waaye quelque fois ñu posé acte yoo xam ne mun donte donte donte sax mun nañ ko muñagum waaye dañuy appeler à que ñuy ñuy xalaat bu baax fi ñu teg seen tànk Sénégal nag wax fi dafa jafe lool. lool ndax dañuy dem ba li ñëpp bokk sax ñi ko yore boo ci wax sa xalaat pour mu gën a baax ñu nekk leen a contre or tey politique passé na. ñu leen faral Amadou Ba faral nañ ko. Amadou Ba Jolof sa gañe nañ ko. ma nga tokkam di liggéey leneen. ñu leen faral sunk faral nañ ko ñu leen faral Diomaye faral nañ ko ñu leen faral faral ko ñu leen faral keneen faral nañ ko. léegi ñëpp kenn lañu war a faral. Mhm. mooy yàlla def ñu yore ñu ne ci bopp réew mi xam ne seen doxalin. day am jeexital ci man. am jeexital ci am jeexital ñuy seetaan. ñooñu nag en tant que citoyen Sénégal bu yore say bien. am nga droit soo gisee ñi lii moo gën a baax nga ñi lii moo gën a baax nañ ko doxalee nii ce qui ne pas nga xam ne gën a waaye nit am nga loo mën a xam ci sa bopp am ci lu wete sa tànk te kay xool du ko xam waaye mooy mën na xam loo xam yow mu doxal sa xamuloo ko. gis nga la bon gouvernance mhm. ñu ngi koy fàttali bi ñu koy premier crise yi bële passé mhm. gouvernance sobre gouvernance vertueuse rupture rupture mhm. yaa ngi fi woon maa ngi fi woon ñi ngi fi tey mm. fan la mujjee la patrie avant parti la patrie avant le parti slogan du ñuy jugé nit maa ngi gis dem benn journal bi ko bind ba am solo di wax régime ak seen slogan mhm. il faut travailler encore travailler on s'en rappelle beaucoup travailler on ne dit pas qu'ils pas travaillé de mais boobu c'était le c'était le système. waaw moom la mais gis nañu am bi ah non nañu bàyyi. jëw mais ñii bi mais ñii bi ñëwee. nañu bàyyi ay jëw tur ay système ak anti système ak demba système. slogan yi mënu ci juger ay nit. xam nga man xam naa la patrie avant le parti bon gouvernance fan la mujjee ñii. Hmm. commencé nañu ñu ngi leen di ñaanal ñu def fi li fu kër mu sa def ku ñëw ëllëg def lu keneen mu sa def loolu moo tax am réew di màgg. kon gëm nga ni poursuite dina am suite. mais je ne me focalise pas même sur les poursuites. wala da nga jàpp ne woon foo woon rek. no dama ne dans la gestion globale du pays. xam nga mu mm. ni question sànq. Mm. laaj ma ne laa ci gis par rapport acte yi njëkk a mm-hmm. ma ne acte yi de intention yi mën na fee nekk waaye damay bañ ku leen dévier. Mm. dévier suñu ay njiitu réew ñun tey jii. xam nga am na fan yi passé ay nomination yu génn. Mm-hmm. yoo xam ni sénégalais yi ñëwaat nañ ci mhm. def ay var mhm. ci engagement yi ñu amoon ak askan bi mhm. bokkoon na ci nomination yenn poste yi directeur directeur généraux suñ koy def dañuy def appel ak candidature bi pas defuñu ko ku ci jéem a am non loolu ma grave ku ci jéem a lay ku ne yaa ngi leen di sànq gis nga loo xam ne nit dafa baaxul sa waay ah bul fàttali de da gañoon suñu confiance lii nga ñu waxoon te nga jëm a tegu ci loolu rek mais ji leen layal loolu mooy yàq loolu mooy. jur mais est-ce kon ne rek ñi fi nekkoon ak régime bi ñu bàyyi la ñu toog seen poste nekk naan appel à candidature mais temps boobu tey jii ci kun jox. mandat appel non non non loolu amul loi. appel à candidature amul loi de appel à candidature dañoo a fal rajo bi. mais ñoom mais ñoom certains postes lañ certains postes. yooyu mooy ñaan. ñoom waxuñu woon yéen. moom bref. Euh, c'est-à-dire que ñu euh, encore nga nit ki soo ko bëggee. Hmm. bul bàyyi bu jàdd yoon ba sori nga koy soog a wax. Hmm. bu ñu layal yenn yi. dafa am projet. Hmm. bu gars yi amoon présenté ñu ko. ñu rafetlu ko lool. Sénégal yi gëm ko xeex ci surtout ndaw ñi. nañ leen di fàttali yooyu engagement suñu leen bëggee dimbali. lu ko mooy rek mhm. dañ leen bàyyi ku leen tudd sax ñu saaga la fa muy jur mooy ay déviation yoo xam ne après dana parce que régime yi fi jaar yëpp ils étaient bien partis régime yi fi jaar yëpp ils étaient bien partis mais dañuy dem ba càgg am li ñuy wax. mais état de grâce aussi pour quelqu'un qui vient de faire un mois. mais am nañ ko. il faut lui donner du temps. non bien sûr on est d'accord non amu ci benn problème. non amu ci benn problème parce que aussi. Hmm. ñii nii muy le président Bassirou Diomaye Faye le premier ministre Ousmane Sonko par exemple bi ñu constitué gouvernement bi. Hmm. mais amul ko tàccuwul parce que day gis ni kat ñii du indi. ce sont des yoo xam ne xaaruñu par parloo ñii dañoo bëgg liggéey liggéey leen tax a jóg mm-hmm. parce que liggéey gi mooy sa njariñ mooy sama njariñ mooy njariñal ñun ñëpp mm-hmm. nanu bàyyi bu ñu falee ay njiit delluwaat nekk seen i jaam au contraire dañoo xool kër gi dàq ci réew mi mm-hmm. muy présidence wala palais ñu jël nit ñu ko yaa fi ne suñuy jàll ñu ne ñu taxaw la ñu taxaw su waxee ñu jëfe ko parce que lan dañ ne ko yaa ñu doy li ñuy bënk ñun ñëpp dénk nañu la ko. kookee nag boo jëlee par exemple yow sa bopp dénk ko nit. sa oto rek boo ko jëloon. dénk ko tey nit dama la jox confiance ngay soo yëggee ni ci mi ngi gëm da nga bàyyi mi gëm naan non je lui fais confiance. Mm-hmm. kon naa ko may naa ko may naa ko may kii état de nga waaj dal lu tuuti. Mm-hmm. c'est de ça qu'il s'agit fii kenn waxul. ngir contre kenn teel na sax pour contre et contre pourquoi. il faut sénégalais yi bàyyi affaire de contre ak yeneen man dama jàpp sax ne même opposition lu am si liggéey réew la bokk. Mm-hmm. Ah. parce que dafay nekk contre pouvoir dafay nekk balance. Mm-hmm. mën di fàttali nga pensée unique baaxul. ce n'est pas pour rien qu'après réflexion. le Sénégal a accepté dugal ci biir texam le statut de l'opposition ak ce qui chef de l' opposition. parce que opposition dafa baax ci réew. waaye tollaguñ fa parce que opposition bi ñëpp kañ d' accord ñi ñii gaa yaa ngi ñu ngi soog a installé neex ma gis ni le pouvoir ak ñu ngi def liñ jàpp ni moo gën. l' opposition ak sa minorité. mu ngi taxaw leen teg ba teg leen pression. loolu mooy tax réew mi dox. loolooy démocratie Babacar Mbaye Ngaraaf léegi ñu dëkk ci beneen point bi euh, di fàttali ni. littoral bi géejawaay yàgg nga ci xeex des années ah. boobu yàgg na sax tool yi tollagul woon fii euh, kuréel bi ko yor. yow nga nekk taxaw sunu gox. waaw mu ni. muy taxaw tem aar sa gox. aar sa gox. Mhm. nga yor seen communication ak seen kàddu. Mhm. Babacar Mbaye Ngaraaf ay dogal ju ci nguur gi jëm ci arrêt des travaux ci littoral bi. Mhm. li ko jëlee corniche ouest ba corniche est euh, jàppee ko Ndakaaru ba Malika. ginnaaw gi sax jël nañ ay dogal ci biir réew meek yëpp. mbuur ak kaat point ak fu nekk ak ndar ak yëpp. Ah. oui tout à fait gars yi ñu ngi fa mais ñu ñëw ci littoral bi. littoral bi dama dégg nga am loo ci wax ginnaaw dogal bi ni nga ko gisee nga ni gars yi tabaxuñu ci domaine public maritime bi lu tax nga wax loolu ngaraf waa d'abord damay wax loolu yi ni coole mooy benn mesure lañ jël hmm. moom ku ma laaj ma ne ko une mesure de en soi elle n'est pas, elle n'est ni bonne ni mauvaise, a mm-hmm. C'est l'usage qu'on en fait qui, au finish, en donne le véritable qualificatif. Mm-hmm. mesure bi bi muy excès dañ ko rafet. maanaam dogal bi ko nangu dogal bi mën na rafet. mën na rafet waaye doxalin wi. ak jeexital ga. ak jeexital ga. dafa li ñu indi woon boobu débat. Mm. ñaari mbir la. Mm-hmm. benn bi mooy dañoo mos a dañoo toog bis rek. dégg Pierre Goudiaby Atepa moo génn def annonce bi. Mm-hmm. annonce boo xam ni ministre ko jël waxtaan na ko ci cadre ak chef de ci cadre chef de l'État. Mm-hmm. ñu jaarale ko ci administratif yi. Mm-hmm. gis na ci kii bi sax fi ñu ngi si internet bi bokk dañ ci def. Euh, estampillé secret. ñu jàpp ni mesure bu toll noonu ak daye bi mu am Pierre Goudiaby Atepa nekkul ministre du foncier de de de de finance bi de nekkul ministre de l'urbanisme mhm. nekkul ministre euh, de l'tuti euh, nekkul porte-parole du gouvernement ah, nan la moo war a mën a tax di annoncer Sénégal yi mesure bu toll noonu surtout que mesure boobu kenn xamagu ko mhm. ma jàpp ni looy bañ da nga koy bañ ci njël bëkkat réew dañ koy bañal pëcc xoo mhm. suñu nekkee une république nekk un état dafa état de am ay organe am un gouvernement lu toll noonu gouvernement moo ko war a annoncer te am na ay fu koy jaare loolu la ñu xam moo tax bi ñu ci waxtaanee dañ koo wax le ministre finance finances. Mm-hmm. mu jël lettre bi ñu ko DG. Mm-hmm. bu DG tontoo bu DG jël ay mesures wax ci service am. Mm-hmm. loolu lu rafet la ba li ñu woon mooy fi mu jaar pëcc bi ñu gis ne en tant que citoyen suñu bàyyee yi di nga xëy fii gis yeneen mesures yu am solo. yoo xam ne beneen responsable politique moo koy annoncé à la place même des ministres compétents. gis nga réew mi dañu am indépendance na booba léegi at yu bëree ñun ñu choisir la rupture parce que y avait deux camps ñu élection yi passé mm-hmm. le camp de la continuité ak le camp de la rupture mm-hmm. les cinquante huit pour cent maanaam les sénégalais dans leur ensemble bokk dans l'écrasante majorité mm-hmm. préférer le changement la rupture kon li doon dox dañ ko a dagg la fa baax dañ ko war a gën a baax la bon ñu dagg ko beneen mu jeex ñuy bañ di bàyyi pratiquement la muy tànn ku mu neex rek parce que bon nekk naa grand wu diw nekk naa xaritu diw naa génn wax la Euh, mën naa en son nom wala mën naa à la part de son pëcc xoo indi loolu ñu naxarlu ko. est-ce que du benn genre sonde. mais ba pour euh, jarul sonde parce que mesure bi mesure bi. dinañ adhéré ou pas. mesure baax la. Mhm. mesure bi nii. Mhm. dañu dañuy saytu li nga xam ni am na. Mhm. ñu wax ci affaire corniche est yeneen corniche xaw ma sax wax ci yeneen côté yi. li to bande filao Géejawaay Malika et autres. loolu dañ koy saytu saytu ko saytu lu baax la. boo ko saytoo. li nga gis ni am na coow nga xool li nga xam ne moo ciy dëgg nga considéré ko di ci dëgg nga ne gaay kat ay la yéwén am na loo xam ne gëstu naa ko ndeka ay tuuma kret kese la woon. ñu gis ni am na ñu bëgg kut kut indi benn pëccëxoo ak benn euh, amalgame ak benn confusion ci mbir yi. parce que sénégalais yi li ñu yàgg di naqarlu moo nekkoon occupation bi nga xam ni la ñenn ñi. defoon ci domaine public maritime bi nekk ci corniche bi ay sénégalais gis ne dañu leen xañ seen ak ak seen yelleef ci ñu jariñoo ci te ñu koy xañ ay sénégalais ñu ëpp ci comme ñoom te ëpp lawuñu leen dara ci réew mi loolu xëy na am am ak relation ñëpp di ko naqar man dem naa ci ay marche ak ay manifestation ba tey loolu la gars yi doon kaas ñu koy bis rek gars yi léegi sax presque bëgg a boole jaxasoo indi affaire euh, accaparement de la façade maritime bi am ci corniche bi. ak affaire Guédiawaye. te bokkuñu de. mooy moo tax ma ne le domaine public maritime c' est un espace. Mhm. dañaan la géej gi su maraxee la wax marax ñu xam sa mooy suuf suuf su baree ba sànni. Ah, waaw sambara waaw day sax day varié. Mhm. d'une région à une autre ou bien d'un pays à un autre. jàpp su ma jumul fii ci Sénégal cent mètres la. Mhm. man ni domaine public maritime bu géjawaay amul benn occupation bu fa am encore mooy une construction. lan moo fa am. amul parce que domaine public parti bu Guédiawaye mhm. li ko séparé yi. Mhm. ba ca gën a siiw ci DPM bi tali bi kese muy la VDN 3 mhm. bi lu ñuy wax déclassement de la bande des ah, filao mooy coow lu Guédiawaye très bien te cette bande des filao mm. biñ koy déclassé waaye Guédiawaye ñoo ko laaj pour ñu déclassé ko. comment pourquoi ngeen laaj ko. ñoo ko laaj avec risque yi mën na am yépp ci domaine environnement. très bien jërëjëf géej gi mën na mer xaaju sambara dugg ci biir lii ni parce que doo sóoroo leen lii am tey mais ëllëg mun na nekk ay conséquences ci dëkk nit ñi. voilà déjà loolu c'est un débat dépassé maintenant ci ñëwaat les arguments plausibles yóbboon nañ ko fa parce que ñii dañoo bëggoon Guédiawaye ñi bëgguñu du ma ko fàtte. ñi nga xam ne ñoo bëggoon te nekk ci mairie yi. ak ñeneen ñoo xam sa nekk ñu maire nekk ñu dara mais gëm nañ loolu moo jaaru dañu doon def ay rencontre yu lu jeex man mi fekk naa au moins rencontre bu am wax naa ne mën naa ci rencontre yu bëree bëri am ak ay acteurs développement ñii dañu nekk ay délégué de quartier ñi nekk ay imam ñi nekk ay bàjjen ñi nekk ay leneen ñu assuré ñu pour temps yi rek doyoon nañu parce que maire yi bu ñu fàttee nga bëgg leen nga bañ leen mooy ñi askan bi tànn pour ñu do dénk seen bopp. comme tey ni ñu dénk assemblée wala comme tey ni ñu dénk président république damay bañ ñu bëgg a néewal doole le poste de conseil le le poste et la fonction de conseil municipal. non man waxee moom. baal baal ma ñëw rek Ousmane. Ah. ma dimbali parce que maa ngi dem ñoo waxtaan ba daal di établir benn benn benn plan. Mhm. tudde ko plan concerté. Mhm. tudde ko mhm. plan d'aménagement du littoral. jël ko jébbal ko le conseil de la ville de Guédiawaye. le 19 décembre 2019 mhm. ville bi voté ko def ci délibération adopté ko mhm. le 14 avril le 14 mai le 12 mars le 12 mai 2002 2023 mhm. mu am approbation 2021 mars ci lañ jël affaire yu yóbbu ko décla ñoom déclassement plan bi daañu le plan bi géjawaay moo ko tëgg pourquoi ñu tëgg ko parce que fa am géjawaay dans ses efforts de développement en un certain moment ça ne date pas d'aujourd'hui mhm. dafa confronté woon à un problème d'espace mhm. pour disposer d'équipements et d'infrastructures indispensable à son ri à de ville moderne. Mhm. xam nga Guédiawaye cité bu amoon mille habitants. bokkul ak Guédiawaye ville moderne bu am cinq cent voire sept cent mille habitants. ñu gis yu bëree bëri amuñu ko. ñu bëgg nañ ko am am nañu financement yi am nañ pexe am ko waaye amuñu espace buñ ko defee le seul espace qui nous restait moo nekkoon la bande des filao mhm. ñu ne nañu dindi filao yi def fi yenn équipement yi waaye également ñu def fi yokk suñu asset foncière pour renforcer l' accès à l' mhm. ci lañ jël mbir mu yóbbu ko ñu décrété ko déclassé ko tuddee ko PUD mhm. boobu PUD tey moo permettre Guédiawaye am cimetière chrétien et musulman parce que Guédiawaye était l'un ce n'est pas le seul était en tout cas l'un des rares départements département entier ba amul cimetière dafa naa amul Sénégal Guédiawaye amul woon cimetière ñu gis yi fi ñu taa denc certes ñu gën a yóbbu ay Touba ñii taawoon ñii feneen waaye bokk fi ñu gën a jege mooy Pikine te Pikine mi ngi fees mhm. tey foofu pays bandi bandi ba ngi déclassé foofu lañ def cimetière musulman cimetière Guédiawaye cimetière chrétien yi te it bañ koy def dañoo gis ni filaawo yi dañoo am solo ndax comme ni nga koy waxee dañoo am benn rôle environnemental écologique bu ñuy jouer waaye dans la mesure où c'est ça la vérité également filaawo yi nekk Guédiawaye atteindre nañu seen limite de dure de vie ndax filaawo seen un être vivant mm-hmm. dafay juddu màgg màgget de mais ñu jëmbataat ko très bien ñu ne comme dañ koy jëmbataat mm-hmm. te soxla nañu espace. nañ fexe jëmbataat filaawa yi diggante géej gi ak tali bi moo tax boo demee géejawaay di nga ko fekk ay parti yu ñuy jëmbat filaawo kon le décret dafa régler deux problèmes régler na suñu problème bu ñu soxla pour am yokk suñu assiette foncière waaye régler na également le reboisement la reconstruction de la bande des mais décret boobu mais décret bi. waaw ah. da nga ne dafa am solo. Hmm. mais lu waral mu jur coow ba mu dem cour suprême. waaw ah, très foofu laa jëm ah. non àdduna loo gis day am ñu nangu am ñu nanguwul. suñu borom sax mi ngi sàkk ñun ñëpp. xam ne li ngay wax dafa am solo mais li liñ ci jublu woon ci infrastructure ak équipement. Mhm. mais aussi tamit euh, permettre nit ñi ñu am fu ñu dëkkee dafa mujj ni. alal borom barke lañ ko mujj a def ay borom barke ñoo mujj a ñëw. lool nag mooy coow li pàcc waaw léegi nag coow loolu laa bëgg a dikk ci loolu kay moo waral ñu dekkal. travaux yi ah. ci li ma bëgg a dikk mooy. Hmm. PUD bi hmm. buñ ko xarab. parce que nga PUDB yooyu fu ñuy wax fu ñuy wax foofu jag laa si tey ci wax am na solo mais li indi coow laa bëgg ñu dikk ci ba ba tey ji le dossier est pendant à la cour suprême waaw dafa am ñoo xam ni ñoom ay environnementaliste la ñu ñu gëm ni fii waruñu koo laal mhm. ma rafet loolu seen démarche ñu nekk ay nit ñu responsable waaw dem yóbbu ko ci yoon du dara Omar Gueye kañ xëy na yow fii nga tabax fii nga teg sa table sa mbudd kër neexuma mhm. mais loolu day am souvent wala fi ngeen bëgg a tabax neexuñu wala li ngeen bëgg def neexuñu d'accord ñu dem ci yoon loolu dara. am la am solo am la am solo. mais suuf si ñeneen ñoo ko bëgg a ñu dul waa ah, Géejawaay. ñu dem tribunal loolu de yow Amady sa da ngay ah. ñu dem ah. suprême pour ni dañ ko jox yeneen nit. dañu ni foofu keroog laa parce que filaay yu ñoo fa war a nekk dañu dañoo jàpp loolu dépassé nañ ko. Mhm. pour la bonne et simple raison que décret mi ngi génn 2021 tey on est en 2024 foo fekkee Géejawaay fa wax fa foofu foofu noonu def nañ fa cimetière ba pare def fa dépôt BRT def fa maison de la jeunesse def fa département de instance def fa ay cité magistrat def fa ay cité impôt ay ñeneen ñeneen dañ koy toj ñu waat fay filawoo. ah mais dañuy arrêté. non non non ah, j'ai posé ne ñi ñi ñuy construire da leen ñu continuer parce que def nañ plainte of nag ak yu ne nga dugg. non non ñaari mbir yu bëri su ah. damay def question par question. Mm-hmm. da ma wax ñaari mbir. Ah. plainte bi dem cour suprême ak ñiy kaas ci laa bokk ci ne waa géej waaye dañ cee war a gis seen bopp. Mhm. ñaari mbir yu bokk la. waaw man de plainte bi dañu ni foofu ay filaaw ñu fa nekk ñu ko def dañoo avancer ay raisons environnementales. Mhm. xanaa xam moom tey gis portable yi ñu ngi portable yi mhm. am na ay effet de danger néfaste pour la santé. Ah, bien sûr mel noonu même ceeb bi am na effet négatif mais dañu gis écoute dëgg ceeb baaxul. wala boog ceeb lu mu baax baax baax tamit am na loo xam ne da ci lore soit ma soit bañ a lekk ceeb lekk dara toog wala war naa lekk ceeb te muñ li may lim li ma yàqal ma muñe ko li may defaral donc dama ni cimetière yi ma la wax nii musulman chrétien ah, dëpp bett yooyu noonu yëpp dama bëgg a indi ah, lan mu indi coow li non ba yow yaa indi confession bi de ñooñu la gars yi ay ñeneen gars yi ñoo jàpp dañu dem cour suprême pour ñu annulé décret bi ndax foofu fa felaawu mu fa a nekk waaw maam ñeneen ñu ne déedéet ñi coow ci laa bokk dañu ni ñun d'accord nañu PID parce que ñun ñoo ko laaj ba am ko waaye tey dañoo constaté ni boo demee ci partie yi nga xam ne dañ ko réservé à l'habitation waa waaye gisuñu seen bopp ma rectifier parce que àdduna lu tax gis nga seen bopp soxla mbooloo attendez soxla mbooloo hmm. du ma tax a fen hmm. wala bëgg ñu ne waa góor te du dëgg du ma tax a fen hmm. dafa am fa xam ne ñun ñëpp muy bàmmeel soo toggee teel di wax loo xam du dëgg nga xam du lay xeet buñ ñëwaat Guédiawaye amuñu ko naan déedéet c'est faux ak yaa am nañ ci. am nañ ci. waaw loolu da ci am. dañuy daa am naa kañ. ci te ci waaw. kon yow looloo tax bëggoo gars yi. ba tey mais baal ma expliqué rek ñen ñoo ci am ak na lañ ci amee. parce que man Guédiawaye li ma comprendre xam na Guédiawaye li ma comprendre mooy. gars yi bañuñu ku fa tabax. Mhm. bari na ci ñoo ñu bari ñoo xam ne seen bopp la ñuy sauver ak seen intérêt. Mhm. du intérêt wu Guédiawaye. Mhm. est-ce que loolu amu ci parce que tamit géejuwaay même communes yi nekk ci maire yeeg yu ne. kenn du ci wax naan bu kenn tabax. suñu wàll rek la ñuy laaj. non man dégg ma ko wax suñu wàll sax ah, mais dañ naan commune temps mairie temps waa sam notaire dañ ci war a am lii waa lii. non mais ñu xam. waaw ah. il faut que nous il faut que nous dañu ni li dégg coow li lan la dañu ni PUD déclassement bi. Hmm. waa géejuwaay gis ñu seen bopp. mais yow gis nga sa bopp d' accord ci non non ma wax boog wala boog man doomi ah, boog c'est bon ok waa gis seen bopp ma ne ah hmm. dafa insuffisant parce que bu ñëwee waa gis amuñu si hmm. te ma xam ak yooyu ci am dama naan après mais sax xib damay fen man ci li may xeex mooy ñi ñu jox te ñu ëppale ñu fuuf hmm. nañ ko fexe jox ko waa gis waaye nag attention gis nga nit bul bañ ko la mere ci wax lu dëgg dafa am ce qu'on appelle le sens de responsabilité am na ñu fa am par exemple ay conseil municipal suñu fa conseil municipal fan lañ bokk. Géejawaay Angleterre. wala Mauritanie Géejawaay lañ bokk noonu du ñu du ñu doomu Géejawaay. Géejawaay waaw kon am nañu. Hmm. xam naa fa ñeneen ñu am. par contre ñu fa joxe dafa ndaw ñu bëgg ñu gën a jox waa Géejawaay parce que bala nga ñu naan ne fa su sa fa nekk te bari lool. avant ngay jox ñoo xam ne am nañ soxlawuñ ko nga jox ko doomu Géejawaay yoo gën a soxla ça ne dire que nag yeneen duñ ci am parce war a moytu lu dangereux loo ni mën naa jur sax séparatisme ëllëg. xamul Sénégal ab nation la bu ñëpp bokk. Mhm. tey jii am nga mbokk bu juddoo Pikine am na kër Thiès. Mhm. wala xombal wala ndar. Mhm. li tax man tey ji ma nekk enseignant toujours ma wax ko ñu jox ay enseignants à travers les coopératives ay terrain à Saint-Louis. image waa Saint-Louis non duñ ko d' accord ñu doon Saint-Louis ñu war a am fii déedéet xam la ñu war a wax. waa Saint-Louis d' mais pas waa Saint-Louis seulement on est d'accord ñuy xeex ba mooy suñu combat kenn jiitu ci. léegi dogal bi nguur gi jël nag ci jamono ah. yow lu pertinent la. dogal bi waaw ah. ah, dogal bi baax na xam tax mu baax. Hmm. dañ dañuy dañuy seet dogal wax nañu annulé PID bi comme wax loolu de. Hmm. parce que gis nga Omar. Hmm. bu ñu ñëwoon tey li may bañ mooy. ñu mel ni dañuy bëgg a def suñu xel ñun waa Géejawaay ni noo nañ annulé lépp ab jox leen ko waa yi même bu ñu joxoon yëpp sax 100 pour cent Guédiawaye dina am ak mhm. la population dépasse de très loin. ko war nañ ko joxe loolooy coow li. ah joxe joxe nañ ko parce que war nañ ko joxe war nañ ko ñu joxe nii. Mhm. war nañ ko joxe kañ. Mhm. xam naa lu kaas. ni Guédiawaye dañ cee amul du doy. te damaa jàpp ni moo tax ma ci profité. mais nguur gi waxul loolu ah. lan la nguur gi wax. nguur gi def na ñu arrêté xool. waaw arrêté xool ak ñu bokkul. mais tey ji bu ñu demee cour suprême. Ah. ne. décret bi normalul mais amul problème ba taxul décret bi normalul mais quel est le problème. mais lan moo yóbbu mbir mi OFNAC. non OFNAC li ñu indi OFNAC beneen problème parce que Guédiawaye. waaw dafa am euh, ba PID bi ñëwee. Mhm. dafa fekk ay ñu fa amoon. yooyu de sax mooy les vrais débats. Mhm. un. Mhm. nekk ay habitation. te ay nit lañ koy jox. nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax waa Guédiawaye ndax gën a jege gën a yey. bon ci wàllu boobu. lotissement am na c' est un lotissement la ñu war a njëkk a mettre en avant mooy la dimension sociale. yéen da ngeen wax géejawaay mais euh, conseil municipal yi rek ñoo séddoo mbir mi. non du conseil am na ñeneen ñoo xam ne conseil géejawaay laa juddoo te. waaw mais d' accord mais ça ne gêne pas. oui les mais il faut il faut qu' on soit cohérent dañu ni lii pour waa géejawaay la. waaw conseil municipal waa conseil municipal bokk ñu géejawaay xanaa wala fan lañ bokk. Ah, fan lañ bokk dañ ne warul tax ñu séddoo suufu géejawaay aussi. séddoo wuñ ko de dañu war a am ñeneen am xam nga aussi il faut ñu cohérent mënuñu ni mais OFNAC bi nga bañ a dugg dama bëgg nga tegal ma damay bañ hmm. ñu jël waa géejawaay di ko dóor ci kaw waa géejawaay non parce que conseil municipal yi ngay wax ay doomi géejawaay la ñu bokk géejawaay waa ma ne hmm. bu ñaa par exemple yéen na jox Pikine Pikine yow foo def du Pikine non man Kër Massar je donne un exemple da ngi tey dañoo am ay terrain enseignants yi hmm. est-ce que enseignants yëpp am non non donc même bu ñoonte nañ ko jox waa géejawaay kese dàq ñëpp génn ñëpp jël jox waa géejawaay mais dina am ñu amul parce que population Guédiawaye moo ëpp fuufu ñu may kon nañu waxante dëgg. mais te bañ ñu jël Guédiawaye. di ko dulce ko Guédiawaye mais bi nekk OFNAC dama la ko laajaat naa la ko laaj mais woo dafa am ñoo xam ne ñu nekk Guédiawaye amoon ay terrain foofu ci ci ci ci Guédiawaye ci mm-hmm. littoral bi. Mm-hmm. mu nekk euh, lotissement Béy di Sey. la mairie de am laay moom moo ko initié woon. Mm-hmm. ay nit dajale seen dërëm ak sa ñaar dërëm yi sax am gratuitement ndax mairie bi leen ko jox. yàlla def mënuñu koon jëfandikoo parce que à l'époque bu ñu ñëwee bëgg a tabax doon am na seen i kayit ausa mhm. farañ leen noo fii mun leen fi ndax ci bande de fila wala nekk mhm. bay di sëy yàlla ko yàlla yërëm xeex na ci xeex bu nekk dugg na ci fu nekk pour rek ñu déclassé mais gars yi nag da ngay xaar le global de nu tuuti de toute la bande mhm. muy toog di xaar diggante yàlla def mu wuyu suñu borom yàlla ko yàlla xaar àjjana amiin baax na ma jàngal waaw la gënoon nekk le président de la République bi fi nekkoon daaj nañ jéem a prendre en compte lotissement bi fexe ba victime yi bañ a ñàkk en quoi faisant ñu intégré ko ci biir PUD bi. Mhm. bañ ko présenté keroog à la ville de Guédiawaye dañoo indi feuille bi teg. Mhm. il n'y a qu'un seul lotissement qui était considéré existant mooy ñu tuddee lotissement maire Ndiarème Limamoulaye. Mhm. président dénk ko ay agents de l'administration. gars war ko jox victimes yi. ñu xëy bis rek. gis gaa yi séddoo ko ci seen biir tànn ay ñett ñeenti victime jox leen di jëlee si séddoo ko seen biir. Hmm. ñooñu la ñooñu la ñuy séddale mbir waaw mooy l'ancien receveur wax ma nag mooy euh, ki fi nekk du moom de. Hmm, hmm. du ki fi nekk ah, ki ko moom ki mu remplacé. ki mu que boo nee receveur da ah. tey bëgg la ñuy tudd ay tur ah. mais ki fi nekk. du moom du moom. keneen ki la ki mu remplacé. moom la ñu dégg ko moom ak keneen ko fi nekkoon ak beneen dëkk national bu fi nekkoon. nekkul tamit ki fi nekk. nekkul tamit kii fi jógee waaye kii fi jógee ki mu wutu ñoom ñoo def seen yëf xamuñu ñu sax lañ ko teg ñëw nañ daal tànn nañ benn liste am ci quelques gars yu ñu dal dugal li ki des yëpp ñu ngi ci liste ñoo xam ne ñii mosuñoo am ci redressement BDC yi un centimètre carré ñu gis également yeneen zone yoo xam ni dafa am par exemple boo jëlee tey jii IMS c'est le redressement bi dafa am fu mu taxal lu ñuy wax sam notaire mu ngi nekk sam notaire la ne mu am na attribution yi fa amoon ay nit profito ci benn situation boo xam dañu waroon tabax un lycée scientifique foofu noonu. mu impacté ay parcelles waaw bu ñu nekk a tax fi lycée waaye dafa impacté ma majo taal bi ñu toog xanaa kañ taal bi kese la ñuy toxal ñu ne boo léegi lii ne nañ ko yóbbu feneen. waaye réservoir fa nekkoon profito ci. yokk ko ci ñoo xam ne lycée bi laal leen laalaanu leen. ñu gis aussi ñu bees ñu dugg si ñoo xam ne mosuñu coo mosuñu cee bokk. boo leen laajee ñu lay menacé ba fi casse dañuy wax léegi fi am ay terrain mhm. yow nga am nga fi 500 terrain 1000 terrain mhm. mais naa fi am 1 million de terrain du man maa jox sama bopp terrain mhm. terrain ñaar rek mën am je ne de moi su ko amee soit dafa légal y a pas de débat soit c'est illégal yéen a ma ko jox kon yéen def dans bon bref bi coolee na bari mu mel ne dafa indi benn chantage non su ngeen cassé dañuy wax li ngeen am ci terrain ma leen am naa 500 terrain c'est yóbbu leen ko si yoon. Mhm. mais am nga si terrain. mais maa ngi terrain bien sûr c' est pas interdit terrain ñaara mën a am. ma nag terrain géejuwaay bari bari la nga ci de. non macha allah jàpp na bari naa ci. Hmm. j'en profite pour hmm. soo amee sa terrain. Hmm. mbaa am sa oto. mbaa am sa monte bi di ko jaay. nit a koy jënd rek. su ma a ak yow d' te am am koo jënd soxla ko. dama koy jënd su ma ci gisee araamul loo aayoo ko. voilà oui. xam la ma doon garaaw. ñu jox ma ñaari yoon wala ma jox ma fukki yoon te Omar amul Demba amul Paate am te gënuma leen. Mhm. waaye Omar am yëfam keneen am yëfam di ko jaay dañ koy jaay rek ku mu neex nga ma am jënd gisul la moo ci mhm. bu ñu li yoon da ko aaye. Mhm. lislaam da ko aaye mais ah kon lislaam da ko aaye kon bàyyi naa jënd ak jaay bokk. loolu du débat bi. donte certains mooy ki may wax ne receveur bi may la wax nii en faire un chantage. oui am nga fi tas de passé koy wane man ko neel am naa fi deux mille cinq cent parcelles. waxal loolu waxal sax cinq cent bu la bu xool nombre bu la neex li am solo mooy ñu mën koo justifier. bon bref maintenant ci wàllu bu of nag boobu. Hmm. lotissement bëy li ñu bëgg. dañuy tëj waa mooy lotissement bëy di sëy bi. ñi nga xam ne dañ cee nekkoon ay bénéficiaires te te ay nit fokkor ci ko ci ñoom mesure bi jël leen en compte ba ñu réhabilité leen dal leen seen àq ak seen yelleef ñi nga xam ne aussi dañoo nekkoon victime des pratiques de recevoir là. Hmm. ci ci ci ci extension EMS bi dellu leen seen ay seen ay alal ay doomi géej waaye la ñu nit bu noo fekk ci goxam mu góorgóorlu ba am dërmam am ñaari pépp suufam nga jaay ko doole parce que administration nga nang ko ci moom tegloo ko fenn la ko des aussi moy bu ñu defee audit bi ba pare ba xool lii ba saytu ko li fa nekk ci ay terrain nañ ci accorder en priorité les populations de Guédiawaye waaye nag may lancer un appel nañu moytu ñu jël waa Guédiawaye di leen dóor ci kaw waa Guédiawaye ñi fa jot a am te nekk ay conseil wala ay doomi Géejawaay te am ko légalement seen wërsëg la seen yëf la ñi amagul nañ fexe nu ñëpp àndandoo jàppale leen ña sa xaj jëm caa am waaye ñu moytu ko daal di xëccoo ak di xiroo ngaa suñu biir. nga Ngaraaf émission bi jeex na di fàttali ni yaay président commission domaniale bu ville de Guédiawaye. <laughs> c' est dommage on n'a même pas parler te pourtant moo tax ñu gën a jóg la fi euh, du travail euh, euh, mais xam naa ni ñu ni bokkal OIS ak bokkoo ak ñoom INSAS dinañu comprendre ni. Omar moom ma dugal te ci débat boo xam ni may ma sax temps ma wax ci wàllu travail yi ak suñu revendication yi xam ni. métti hmm. na tamit tourner principalement autour d' injustice que les enseignants de l' élémentaire appelés instituteurs subissent. Hmm. malheureusement temps bi ma ñu wax ci waaye bëgg naa am benn occasion. wax ci am beneen occasion wax ci parce que yi day ay sujet d' actualité yoo xam ne alors que lee mun nañ ci wax beneen yoon ak yeneen ak yeneen waaw mu doon un plaisir tey dalal la. Euh, Babacar Mbaye Ngaraaf Alliance Sauvons le Sénégal euh, beneen bi ci topp mooy euh, li jëm ci kuréel goo ngeen taxawal ci géejawaay sàmm suñu gox ah. aar sa gox aar sa gox. yaa yor communication bi ak porte parole bi yor aussi commission domaniale ville de géejawaay. yooyu yëpp mën nañ ci gën a yaatal nga jiite tamit OIS organisation des instituteurs du Sénégal mu doon lu yàgg ah. bi ñuy door oxygène di def stage sa kër la la daan fekk di la interroger. waa moo tax sànq sa mayoo ma sax ma gërëm la yow. Mm-hmm. da nga bokk ci ñuy def fierté ñun ci ci suñu banlieue bi. Euh. parce que Amar li man damay bëgg. Mm. ku ñaan kii dafa xuus dàll. Mm. moo tax su ma gis ndeysaan ci plan boo gis naa mu ne ci wàllu jàng wàllu journalisme wàllu bëri wàllu leneen. Mm. ku dëkk ci bale bi. nga perse ba tey ji nekk ci tey ay icône ca fa ngay liggéeyee war ci la nga nekk ça fait notre fierté mm-hmm. te yow ci ñooñu nga bokk macha allah tu as toujours été disponible eh. commencé oxygène di toj oxygène nag eh. <laughs> dafa liggéey liggéey bu am solo ba tey nga bokk ci journaliste yi gën a dégg ci réew mi suñu ndam la suñu fierté jërëjëf Ngara yàlla yàlla di la ñaanal jàmm yow tamit di la jaajafal bu baax moo euh, Modou Diouf Ablaye Diallo ak euh, kii di Abdou Top ñoo nekkoon ci régie bi Omar Bun Khattab Gueye ci présentation bi di gërëm baax Babacar Mbaye Ngaraaf euh, kon beneen àllarba incha allah ñu dikkaat ci beneen émission focus mbokk yi jërë ngeen jëf ànd leen di seetaan solution TV.